صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق هذا Taïsa, c'est une prouesse à magnifier. C'est une prouesse à montrer devant tout le monde. Nous sommes présentement à la gouvernance. Nous sommes sur la route qui nous mène vers la gouvernance. Administrativement, Mohamed Maï Touré et accueilli. Administrativement, religieusement, culturellement, Mohamed Mahi Touré est accueilli à Kaolack. Gouverneur, nous sommes là avec notre héros. Gouverneur, nous sommes là avec notre résultat que beaucoup de télévisions refusent de montrer aux Sénégalais. Mais ici, la convention des médias de la Faïda va vous montrer du début à la fin de cet événement si important Comme vous le constatez avec moi, tout le monde est là. Tout le monde est sorti. C'est ça, c'est ça la religion, c'est ça le Sénégal. C'est ça Maulana Cheikh al-Islam, c'est ça Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ça Elhaj Malik. Si. C'est ça, Ndiassan. Suivant direct sur Barham Vesambia, vous apercevez Mohamed Maï Touré, qui est le champion national euh, du récital du Saint-Coran Nous sommes actuellement au niveau de la gouvernance de Kaoulak pour rencontrer le gouverneur, qui est le chef de l'exécutif. Mohamed Maï Touré, moom ngeen di gis nii ci oto bi ñëw gouvernance pour mu gisante ak gouverneur les héros du jour voilà gouvernance de Kaolack di xaar gouverneur mu ñëw tatagal ko vous le voyez avec le drapeau national. yéen ñuy suivre fii en direct ci Barham Universel Média Mouhamed Mahi Touré di champion du Sénégal euh, sixième édition Sénico prix le récital du Saint Coran bi nga xam ne moom moo ko jël ñëw tey ak si si Kaolack Kaolack yëpp teertu ko moo ngi nii gouvernance bu Kaolack. ñu xaar le chef de l'exécutif régional mooy euh, le gouverneur de la région Kaolack de Kaolack monsieur Alioune Badara Mbengue mu génni incha allahu pour euh, tatagal ko pour euh, encourager ko féliciter ko tamit yëpp di ngeen ko am en exclusivité ci Braham Universel Média di wax ne ñi ngi ndokkeel ñëpp ci weer weeru màgg wi bés bu màgg bii di bési alquran yàlla may ñi ndam li nga xam ne suñ sëriñ dafa ñaanoon yàlla karaamaam di alquran mu nekk ndam loo xam ne nii jongante bu yàgg la woon tamit presque pendant huit mois lañ koy def tabaski lay commencé ba koor yàlla may ñi tey sunu doom sunu jarbaat Mouhamad Mahi Touré di kenn ci doomi pay bi kon ñi xam ne ndam li ndamal Sénégal yëpp la waaye xaasatan ahlu Medina Kaolack xaasatan Maulana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne nii tey moom moo fi teeg toogaayu Cheikh Ibrahima Niass kon dëgg dëgg mu mu jël ci ay matuwaay yu mat wax dëgg yàlla moom sëriñ bi. ñaanam ak yitteem yëpp moom xalifa gi wax dëgg yàlla heure bu nekk da ngay gis ne mu ngi mu ngi mu ngi encouragé ñuy jàng ñu gën a góorgóorlu ci loolu ci lañ àndee ak délégation bi nga xam ne ñoo jugee dakaar ndax ñi ngi noonu nekkoon ak ñoom ci ci ci comité d'organisation bi ci yu bëree bëri bi ñuy ñëw tamit ñu ànd ak ñoom pour ñëw indi suñ doom fekkee lii ndax lii nii xéewal la te ku ku nekk koy am kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp daal macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki réew mbokki àdduna ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziyaara ñu ngi fii tey ci région bu kaw lax ànd ak ki nga xam ni mooy champion du Sénégal ci wàllu njàngum alxuraan édition deux mille vingt et un muy Cheikh Mouhamadou Mahi yàlla dogal dimanche bii passé mu gagné ci diggante ay moroom yu mu doon xëccoon toll ci 44 candidats yàlla dogal mu jël ndam li tey nag ñu ñëw indi ko fii ci nga fi mu dëkk indi ko ci xalif général bi nga xam ne mooy Cheikh Mahi ñas waaye nu jaar ci ki nga xamante ni mooy bunt dëkk bi moo fi teewal le président de la République Macky Sall muy monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue kon ñu ngi koy ndokkeel ci ndam li nga xam ne raison bi jël na ko waaye moom daa mel ni fu mu dem lii da koy jik su ma juumul demee Louga ca dara daraame moo ko jëloon jël na ko Louga deux fois jógee Louga ñëw Kaolack jël ko fi damaa jàpp nag waa Kaolack moom du ngeen bàyyi mu dem feneen kon ñu ngi koy gërëm di ko sant ci turu Cheikh Abdoulahi Dia directeur général bu ko di gërëm sunu mag sunu frère ku xool daara xam ni doomu daara la muy sëriñ mbu mi taxaw di nekk ak abulaay Ablaye di xaritu Ablaye ja lu Ablaye xew la sëriñ taxaw na ci wetam kon sëriñ ñu ngi lay sant di la gërëm yëg nañu action bi nga def ci bisu tay bi loolu Ablaye dana ko yëg ay mbokkam danañ ko yëg yal na yàlla taxawu di gërëm équipe bi ma àndal oustaz Mahamadul Amin Thiam mii sama wet di doomu Kaolack sëriñ aadama Mbuub waaye sëriñ Babacar Cissé ak sunu sëfa Cheikh Seck gouverneur loolu moo doon kàddu yi ñu ngi lay jégalu di la ziar baax di la ndokkeel ci ndam li yàlla na la jik yàlla na jik sëriñ yàlla na di nuyu tam xalifa lew na ak xalifa Ndorong ak sunu kilifa yi fi nekk yëpp temps bi xaw a gàtt wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum ñi ngi am mbégte lool di jaajëfal kii nga xam ne nii alxuraan moo tax ñëpp topp ko te alxuraan euh, waxu yàlla la. Euh, wax bu ne mën nañ ko déngat ba mu des waxu yàlla kon nag bu demee ba tari ko am ci lijaasa amul lijaasa bu ko ëpp doole. li ngeen wax ci gouverneur jëruma di ci doll mm-hmm. li ngeen ziyaare xalifa yi jërëma di ci doon danañ fa dem mhm. ah man comme niñ ma ko waxele ñu le ma ko mhm. bàyyile nañ ko ko war a bàyyile musuñ maa bàyyile dara lu ma gën a neex lii mhm. ndax ñaareel ba mooy ah, maa ngi fàttali ko bu baax xëy na boobu taarix xewul bi may am ay atam laa mokkaloon alxuraan ñu ñëw fii sama papa andi woon ay égyptien ñu ñëw ñu doon ma tirin may taari alxuraan mbooloo mu am solo la woon ah loolu nag incha allah li ma ci jàpp dinaa ko jàpp garantir ko ay waajuram ba di ma ko yàlla demandoo lu war ci moom tey ba ba muy am 18 ans man danaa ko war lu def ko ne sama doom bu waree jàng bitim réew nañ ma ko wax mu jàng bitim réew bu waree jàng ci biir réew mi danaa fay lépp incha allah bi incha allah jërë ngeen jëf yéen tamit di leen gërëm seen taxawaay sant yàlla bu baax a baax a baax gërëm ñi nga xam ne nii ñooy waajuru xale bi gërëm ñi nga xam ne nii ñoo ko encadré gërëm ñi nga xam ne nii ñoo ko accompagné ba wane ko gërëm aussi ki nga xam ne ne mooy le PDG Abdoulaye Dia ci action yu rafet yi nga xam ne nii mi ngi koy def Sénégal te ñëpp teg ci seen bët parce que nag mënoon na ko def feneen ah, bu ko neexoon mais mu def ko ci lii nga xam ne nii mooy alxuraan euh, yàlla dina ko ko fay bu baax a baax a baax te fii la koy commencé sax gërëm. ñi nga xam ne nii ñoo ànd xale bi Serigne Mboup président Serigne Mboup depuis bërki dem ba léegi mhm. moom ci moom mooy koy wax gërëm nag kilifa diine Sénégal gi yëpp rawatina nag xalif général ñu dina bàyyi kii bi édition bi maa ngi ko doon suivre télé mais yaakaar naa dañ ko def sous le parrainage de Cheikh al Islam pour wax rek ne neen hasard amut barke boobu tabarakallah moo am jeexital ba ñëw ci xale bi ah xale bii nag xale sax wax ko moom euh, peut-être xaw a yàq wax la parce que bu nga xam ne ne alxuraan tabarakallah mu ngi fees dell sa dënn xale peut-être ci ay at rek lañ koy wax mais kenn waratu sax tuddee xale kenn warul tuddee xale lii nag dafay traduire rek euh, li suñ borom di wax rek alxuraan moo koy sàmmal boppam moo sàmmal boppam de te nu àddina di gën a avancé loolu du koy gën a gis alxuraan mi ngi ci CD yi mi ngi ci clé USB yi gannaaw bi mu nekkee ci livre yi ngi ci dënn yi surtout nag ci dënn xale bu nga xam ne ci ay at dafa set wecc dafa set wecc lu set nag nga def ko ci lu set fa tabaarakallaa leer kese la donc encore une fois ñi ngi sant yàlla bu baax ci lii yàlla jagleel région Kaolack jaarale ko ci kilifa yu mag yi a ah, comme ni nga ko waxee nag peut-être loolu chance la ci man bi ma nekkee Louga am naa fa ñaar yu mel nii ren aussi lii fekkaat ma loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax li ñu ciy tirer comme leçon mooy di woowaat parents yi di woowaat kilifa yi pour ñu taxaw ci njàngum gën a taxaw ci njàngum xale yi président la république mi nga xam ne ñii ñun mooy suñu kilifa lim ñuy sant tout le temps mooy ñu taxaw ci lépp secteur bu ne mais rawatina secteur u njàng ku nekk xam ne ne effort yi muy def ci daara surtout di ko moderniser bërki démb rek bi mu organiser euh, euh, conseil présidentiel bale dafa seppi daara yi jox leen kàddu ñëpp a ngi ñëpp a ngi toog neen yéen foo mu jox leen kàddu ngeen wax ñu wax mu dëggalaat li nga xam ne nii comme mesure fas na ko yéene te commencé na di ko def pour que daara yi ñu gën ne na taxawu gën ko leen moderniser ba nga xam ne nii ku ci génn da nga am xam-xam da am liggéey pour jëriñ sam réew jëriñ sa sa njaboot loolu je crois que wax na ko ci kanam caméra yëpp wax na ko ci kanam àddina bi yëpp wax na sax ne ENAM gee nga xam ne ñun administrateur civil yi ci la ñuy génne ubbi na fa section bu nga xam ne ñi nga xam dañoo dem ba jàng arab ba am yenn certain niveau yi muy diplomatie daf leen fay dugal pour ëllëg ñu mën a servir Sénégal ci ambassade du pays arabe yi loolu def nag pour wax rek ne euh, fàttewul benn yoon parce que xam-xam moom bu mënta doon rek bu bënnee baax na rawatina na xam-xam bu nga xam ne daf lay jëriñ fi jëriñ la fa ñu jëm muy xam-xam bu jëm ci alquran donc daal du ñu def lu muy félicité leen félicité xale bi ñaanal ko yàlla yàlla aar ko ni mu aaree alxuraan ba kenn mënul ko dara yàlla ko yàlla defal mu nekk nag xale bu nga xam ne nii mu màgg ak jàmm jëriñ boppam jëriñ ay waajuram jëriñ senegal jëriñ àddina bi yëpp yàlla musal ko ci cat musal ko ci làmmiñ musal ko ci bépp pakk loolu daal bëggoon naa koo wax di gërëm nag encore une fois le khalife général de Médina Baye Serigne Mohamed Mahi Niass ba nga xam ne daf ne Serigne Bob président Serigne Bob bala ngeen a ñëw ci man jaar leen ci gouverneur loolu la am solo la loolu dafay traduire rek cër bu nga xam ne nii moom it xam na ko ba jox ko état xam na ko ba jox ko administration xam ne état administration ak kilifa diine yi benn lañ garab bu ñaari banqaas la rek ñooy daje benn lañ kenn mun cee dem bàyyi sa morom ba tax mu ne nañ ko jaarale fii ci man moom gisagoo ko de mais mu jox ma cëru ñu jaarale ko ci man loolu cër bu rëy la cër bu rëy la ngeen yàggaleel ko ko ngeen ne ko maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ci lii nga xam ne nii am na waaw loolu daal lañ bëggoon wax di leen sant di leen sant yàlla bu baax Euh, di ci kontaan lool Barham Universel TV euh, lii dañ ciy bëgg dañ ciy sant yàlla ndax mbir la moo xam ne mbir mu rëy la xéwal la goo xam ne yàlla ñu ko defal tey faw ñu ñëw rek pour jéem a feeñal sunu mbégte ci loolu ndax yàlla dafa wax ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee rek dinaa leen dolli alhamdulillah yàlla defal nañu xéwal gu rëy te xéwal fu beesee rek sant yàlla dafa war a bees moo tax tey ñu ñëw fii eh, feeñal suñu mbégte feeñal suñu kontante sant yàlla wan ko ne ko xéwal gi ñu dafa rëy ndax lii fukki région ak ñeent ñoo ko doon xëccoo ay téeméeri téeméeri nit ci daara doon ko xëccoo bu ko yàlla simpee jox ko benn daara ba fekk ne sëriñ daara ba góorlu na bay bëgg a dee xale ba góor góorgóorlu na bay bëgg dee sëriñ ya ñaan nañ bay bëgg dee waaye itam yàlla xaasal na leen ndax lii xam taxul nga jël ko man taxul nga jël ko waaye góorgóorlu bay bëgg a dee xam rek ndimbalal yàlla mooy tax nga jël ko kon dañuy ndokkeel sëriñ daara bi di oustaz Alaaji Touré di ndokkeel xale bi ci boppam di Cheikh Mahi waaye di ndokkeel xalifa Medina Baye di Cheikh Mahi Niass di ndokkeel imaam Cheikh di ndokkeel Cheikh Mahi Cissé mi nga xam ne mooy turandooru xale bi di ndokkeel gouverneur di ndokkeel mbooleem région de Kaolack waaye di ndokkeel mbooleem jullit ak mbooleem Sénégal lii daal Cheikh Barham buñ la mënee wax lu gën a kawe alhamdulilah amuñ ko alhamdulilah daal lañ gën a am ci baat buñ mën a wax ngir sante ko yàlla ci bés bi. waaw sant yàlla waaw loolu mooy ne jaar euh, si yoon nga xam ne Euh, réew mi dafa am yoon te na it Medina Cheikh Ibrahima reconnaître nañ loolu moo tax balaa muy dem si sëriñ bi si xalifa bi mu ñaanal ko ak si njabootam mbokkam mu jaar si gouverneur wan ko prix bi bu ko defee kon nag ñu ngi sant yàlla baax euh, beneen yoon di am mbégte ak kontaante lii wane rek mooy ne ñu ngi jaar jaar si yoon sëriñ noonu ñëpp a ngi noonu kon daal lii daal mooy wane ne daal euh, alquran amatina ndam Cheikh Ibrahima amatina ndam ndax bañ ko laajee luy sa karaama dafa wax inna sirri kalaamu rabbi mubin ay ilaahi lasi bi nastain kon dëgg-dëgg secret Cheikh Ibrahima mooy alquran alhamdulilah yéen a ngi suivre rek ci Barham dugg si benn Mawlana Cheikh Al Islam El ngeen koy suivre noonu kii di Cheikh Mouhamadou Mahi Touré di vainqueur euh, prix Sénico édition 2021 ngeen koy suivre en direct ci Barham Universel Média arrivé nañ Medina Baye mbooloo mu takk moo génn fii ci marché bi ak euh, fépp foo xam ne ñu ngi romb nañ ñëpp a ngi yëg seen loxo kon waa dëkk bi safoon nañ seen doom ñu ngi teetu seen doom kontaan nañ ci gagné bi nga xam ne moom la gagné lim gagné nii ñëw yéen a koy suivre en direct fii ci Médina Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu marché Médina di jublu immeuble Imam Hassan Cissé di rajo Alfayda yéen a gis ni mbooloo mi génne ni takku di teertu ki nga xam ne mooy Mouhamadou Mahi Touré fépp foo xam ne nit mu ngi fa jaaykat yeeg ñëpp a génn yéen gis héros bi nga xam ne moom moo ñibbisi si si dëkkam. waa dëkkam safoon nañ ko kontaan nañ ko mbooloo mu takkoo takkoo takk ñoo génn di ko xaar fii fii ci buntu Medina Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass Mohamed Mahi Touré di champion du Sénégal de récital du saint de la sixième édition ngeen di suivre fii ñu agsi tomb di wax agsi immeuble ñëpp a ngi yuuxu Mahi Mahi surtout xale yu ndaw yi topp nañ ko di yuuxu Mahi Mahi Mahi Mahi dugg si na dëkkam. lii à école Medina ñoo génn nii élèves yeeg ñëpp a génni élèves yeeg ñëpp a jigéen yeeg góor ñeeg ñëpp a mag ñeeg ndaw ñi ñëpp a génni Mohamed Mahi Touré arrivé et accueilli en héros à Medina Maulana Cheikh Al-Islam El Hadj Ibrahima Niass vous qui nous partout dans le monde le champion de récital du Saint-Coran édition 2021 est arrivé dans la cité de Maulana Cheikh Al-Islam Mouhamad Mahi Touré est arrivé à Medina Baye ñu ngi jub nii jumaa ji ngeen di gis ni gis ngeen di xale yi toppee Okova bi ñëpp ñu ngi dem fee nga xam ne mooy këri gan di ngeen ko am fële en direct waxtaan yi nga xam ne moo fay am ci al xalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass wër rawdu bi nii rawdu Mawlaay Cheikh al Islam El si nañ ñii comme jumaa ji ñu war a jël tali mi nga xam ne moo jëm këri gan jaar buntu kër Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh Ibrahima tey jii. xoolal xoolal xoolal tey rajo Alfayda. su fekkoon ne maahi mii de xalifa bi. waaw nekkul borom xam-xam. mu bàyyi mbooloo mii. ne day recevoir maahi mii. ci biir saalam bi nit ñi bousculade bousculade bi nar a am. bousculade bi nar am fii tey këram. Uh-huh. nu muy nu muy ñaata nit ñoo ci mën a lor. mais xam-xam. ak mat. moo ko tax mu ne nañ dem ca Bayal ba nañ dem résidence Abdoulaye ah, Bayero man li ana lay man kenn ma ñëw moo gën yéen ñëpp ngeen ñëw mbooloo yëpp àndaat nii jëm résidence Abdoulaye Bayero lii moo tax borom xam-xam la ñu war di jiital boo xamee jiitu rek ñi nga jiite dañuy am jàmm bu ñu jiitalee tax xamoon nit ñi nekk ndax sa bëgg-bëgg ngay demee te mën naa am la nga bëgg ak li war a mën a nekk benn ah, mm-hmm. loolu la maa yi alxalifa léegi nii si ngeen ci Alfayda rajo Alfayda Alfayda rajo Alfayda TV eh demal demal demal bu jàpp demal moom ngeen di gis mbooloo mi nga xam ne dafa takku teetu Cheikh Mouhamadoul Mahi Touré ñu jàggee ci alxa jógee ci alxalifa Moolaay Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass yegg si si dëkkam bii nga xam ne moom la doon wax ne dëkk bi dañ ko sancee ci jàng jàngale jaamu yàlla liggéey kon nag jàng jàngale jaamu yàlla liggéey tey nag jàng moom moo jël ndam andi ko fii ci dëkk bi ki ko jël a jël ndam ki si jël ndam nekk peut-être si ñi nga xam ne bokk na ci xale yi nga xam ne ñoo bokk ci ñu mu ko mujj a jël fii ci dëkk bi fàttaleku ne dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne ay xale yàgg nañ fee jël ay ndam fu ne ci àddina bi di ko andi moo xam dafa siiw wala siiwaluñ ko waaye tey nag mu nekk beneen ndam boo xam ne dafa dolleeku lii ko waral mooy dafa fekk média yi tamit toll fi mu toll nii bi média tollee fi mu toll nii moo tax bii am ampleur bu toll noonu waaye Médina bii nekk na Médina goo xam ne nit yàgg na jëlee ndam bitim réew yàgg koo jëlee fu ne ci àddina bi di ko adil fii ci dëkk bii tey nag moom wax dëgg yàlla kontantement bi xale yi am mag ñi am ko jigéen ñi am ko góor ñi am ko kenn may ñi ko lu dul Cheikh Mouhamadul Mahi Touré mi nga xam ne moom moo jël sixième édition prix récital du Saint-Coran organisé par Senico nga xam ne mooy PDG bi di Abdoulaye jaa initié ko ànd ak ay mbooleem collaborateur am ñenn ci membre staff yi ànd ak Mouhamadou Mahi Touré ak waa commission ansa waa président waa waa ansaarud bu Dakar ànd ak Cheikh Mouhamad Abdoul Malik ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mi nga xam ne moo dirigé jaayisa bi fii ci Médinat Cheikh Al Islam ñu fàttaleku ne prix boobu muy jaayisa Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima muy prix Cheikh Al Islam pour du Saint Coran kii nga xam ne mooy Mouhamed Mahi Touré mi nekk champion tey du Sénégal mos na koo jël en 2017 sous le magistère du xalif Ahmed Tidiane ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mi nga xam ne moo fi bàyyi ko te yàggul yàlla yàlla yokk leeram yàlla taas ci barkeem kii nga xam ne moo ko fuutu di rakkam di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass yalla na fi yàgg te ànd ak wër ak imaamul akbar imaam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ak port parole bi nga xam ne mooy Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Mahi Ali Cissé ak Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Cheikh al Islam ak mboolem seeni rakk ak seeni mag. ak mbooleem doomi bàyyi jigéen yi góor yi ak mbooleem muqaddam yi fu ñu nekk ci àddina bi mbooleem taalib Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass yéen ñiy bàyyi xel fu ngeen bunte ne ñu ngi fii ci médina Baye accueil bi nga xam ne accueil bu extraordinaire la mbooleem médina génn teetu seeni doom muy Cheikh Mouhamadou Mahi Touré mi nga xam ne moo jël ndam lu mag li jëlee ko fële au niveau national ils étaient plus de quarante candidats moom mu ñëw génni en tête nekk premier jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi nekk champion du Sénégal sixième édition parrainé par Maolana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye moom mu gàddu ko andiwaat ko fii ci dëkk Maolana Cheikh Al Islam kon mu nañu Cheikh Mouhamadou Mahi Touré mii jël na ndam édition deux mille récital du Saint Coran pour le euh, prix Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran. bi nga xam ne Jaayiza Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo ko organisé woon en 2017 ren mu jëlaat en 2021 grand prix Sénico édition 2021 muy la sixième andi ko fii ci Medina ñu parle ko Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass kon ndam la goo xam ne moo tax xale yeeg mag ñeeg ak góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp a génn Medina Baye nii di ko teertu mu nekk mbir moo xam ne mbir mu yéeme la lu daw yaram la te ay turam ñëpp turam la ñuy woo mooy Mahi moom ngeen gis na lee si drapeau mu sàngoo drapeau Sénégal bi euh, di dugg si biir këri gan euh, Mouhamad Mahi Touré mooy aksi noonu borom Universel Média Mouhamad Mahi Touré mooy ànd noonu ànd ak euh, moo ñëw noonu ànd ak Cheikh Abdoul Malick ni Cheikh Al Islam e Hadj Ibrahima Niass moom mooy agsi nii ànd ak Oustaz Baye Mar waaye jaayisa si boppam ñoom ñoo ko accueillir ngeen koy suivre foofu en direct ci Barham Universel Media Cheikh Abdoul Malick ibnu Cheikh Al Islam moo ko andi noonu ànd ak kilifa yi ñëpp jóg taxaw gannaaw bu ñu waxee aoudu billahi min acheytan irajim إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ñi fan tey ñi ngi Medina Baye Medina Baye gi nga xam ne abyaat waa gànnaar wax nañ ci lu bëri Karachi wax nañ ci lu bëri Makka ak wax nañ ci lu bëri waaye dañuy doyloo tey ñaari magi Saalum Saalum yu askanu fii Mahi Touré ji bidaayatan ñi ngi lay ndokkeel ñi ngi lay ndokkeel ci ndamal alxuraan lii nga xam ne tombe bi mu tombe gi yow du par hasard ndax keroog ba nga njëkkee mokkal alxuraan ci daara ji ci say morom am lu la ci sa gannaaw nga dem woon ko bàyyi pour mu génne la daara ji moo mokkal nga mu ne la yow am nga garaatu alxuraan sëriñ bi am nga beneen garaat tey mooy jaayisal uula bu Sénégal sa sët sa doom doomu Medina Baye Mouhamadul Mahi Touré daal di ko gàddu deg feggoo ak sëriñ daaraam bee nga xam ne daj na ci ne baayam ngi yaayam a ngi toog Medina yëpp a ngi toog tey la aljuma dañ koy gàttal li ñuy def mooy ubbi jotaay bi ak alquran Cheikh Mouhamadul Mahi Touré moo ñuy jàngal alquran ji ñuy ubbee jotaay bi. اجتباهم وهداهم وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاد sadaqallahul azim eh, ci xale bi lool coono bi indi njëriñ mu njëkk fee jëlee prix cinq millions ak billet Makka président wu jaay sa boobu ñu fàttali ne xalifa bi toog moom mooy raïsu jaayisa lajnal ulya moo al imaamul akbar ñu koy nuyu ak ñi nga xam ne ñooy muqaddam yu mag yi ci Nigeria ak fi nga xam ne mooy Mauritanie jaayisa boobu ki nga xam ne moo ko jiite di Cheikh Mouhamadul Abdou Malik Ibrahim Niass moom la jox kàddu gan ñu tedd ñi ganu alquran yi ganu Cheikh Ibrahim yi mu tatagal leen ci ndigalu xalifa bi su ko defee ñu gaawal kàddu yi te kuñ jox kàddu ga gàtt ndax sëriñ bi moo war a firi alquran te tey la aljuma alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain مولاي الخليفة لو لم نردها جلسة براغماتيكية لقرب الجمعة والله تبارك وتعالى ينادينا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم in kuntum taalamuun law lam yakun dalika la atalna alxaditha wala chakarnaakum wala madaxnaakum wala athnayna alaykum ala hada alxadath alkabir alladi antum sababun fi dalik alhamdulilahi hada yowmuna عيد صدق تحقق منظور ومشهود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله gannaaw bu mu nuyoo Mawlana alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi nuyu monsieur le préfet nuyu Deya nuyu Seyid Serigne Mbuub nuyu Seyid Mouhamad Ndiaye nuyu ñi teew ñëpp satida yi jugee ba Misra ñi jugee ba Mauritania ak sëriñ daara yi sang yu góor yi ak yu jigéen yi ni ko Mawlana Alxalifa di waxe nuyu suñ doom ji nga xam ne yàlla defal na ko ndam mu gañee euh, jaayisat Sénégal alwataniya nuyu sëriñ daaraam ak i waajuram danañ tatagal suñu mbokk yu jigéen yi nga xam ne ñooy ndey daara yi jugee ci ay barab yu fasantikoo ci Sénégal bokk na ci euh, euh, Kaffrine ak Pikine ak Diourbel ak Gossas ak Fatick ak ñooro ak kawlax ki leen jiite di présidente ndey daara yi di Adja astu ba suñu ko nuyoo danañ nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo organise ba ndam lii nii am ki ñuy jiital ci ñooñu dafay nekk Seyid Abdallah Dia mi nga xam ne mooy kilifaay Sénico di wax alxalifa Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ne ko mi ngi yóbbante nuyoo ci yéen di leen nuyu di leen nemmeeku di leen ziyaara di sàkku ci yéen ñaan di wax tamit ne bu xatxat yi weesoo incha allah bëgg naa ñëw ziyaara si ziyaara xas la buñ ko nuyoo ak ñiy liggéey ak moom duñ fàtte mukk al ittihaad al watani li jamiyat al madaris al quraniya fi Sénégal suñu tuddoo Serigne jóob Diop bàyyiwuñ kenn ci ñi des ci ñooñu suñ leen nuyoo danañ wax sëriñ bi ne ko da ñee ñëw yónni woon ci benn muhimma yebal ñu pour ñu dem wuutu leen ci bés boobu nga xam ne Sénico moo ko organisé nekkoon bés bu mu war a teral niti alquran yi ci dakaar ñi dem foofu wuuti leen ndax sa waajur cheikh al islam cheikh Ibrahim Niass lañ ko tuddee yàlla dimbale ñu defal ñu ndam bi ñu demee. ndam li uy ki nga xam ne moom lañ ko tuddee te dégg naa kenn ci ñoom wax ne ren mooy seen juróom benneeli édition waaye yoon bu njëkk ñu tuddee ko kilifa kàddu euh, coupe bi delluwaat ci dëkk ba kilifa boobu nekk loolu nag danañ dellusiwaat ci yow sant la gërëm la ndax dama jugee benn tukki 2012 ñi daje ci jumaay baay ji ci mihrab bi nga ne ma Abdou am na luñ créé sa gannaaw tuddee ko prix Cheikh Ibrahim Niass li xifd wa tajwid Qur'an karim man maa wax ne nañ la def nga nekk président wu prix boobu ma wax leen ne leen duuñ ñoñam waaye bu ngeen ñi ñaanalee gungee ñu rek incha allah yàlla dinañu dimbale ma bugg leen ne sëriñ Mahi Touré mii jël coupe bi tey suba war naa delluwaat dakaar bokk ci benn concours boo xam ne dafa jàlloon ci première tour bi mooy Ittihad Ulama al Afariqa bi Mouhamad Sadis créé ci Maroc dañuy amal at mu jot concours ci duwal ci réewu Afrique yépp ñi doon jongante fii nii ci Sénégal Mahi Touré mii moo jëloon paie léegi deuxième tour bi incha allah dafa war a commencer samedi kon moom dafay noppalu rek delluwaat fajar pour dellu ci concours boobu noonu. bugguma guddal waaye bugg naa leen a xamal ne am na ay xale tamit yoo xam ne concours bii ci leen formé woo ñii ñu ngi Maroc ñii ñu ngi Égypte démb am na kenn ci waa Maroc yi ku ma oo ne ma dama bokkoon ci benn concours boo xam ne Sénégal lañ ko doon defee ma nekk Maroc di ko def à distance Babacar Niang la tudd jël na jaayisa ci prix bii nii mu ne ma bi ma qualif bi ma jàllee quart de dañoo dem demi-finale ma jàllaat ñu yónnee ma billet aller ne ma su nga ñëw teew fekkee final bi te final boobu noonu suba la loolu ci barkeel liggéey bi ngeen ñu dénk la dinaa wax ne Moustapha Niang mi nga xam ne ci ñi njëkk a jël kubbi Cheikh Ibrahim bi la te kub bi yóbbu ko keer mu jàngi am na lu mat juróomi shahada ci musabaqaat yoo xam ne mi ngi koy def ci international bi ci Iran ci Maroc ci Égypte kon bëgguma guddal waaye liggéey bi yaatu na lool te lii yëpp dañ leen di delloo sant li ak ngërmande li fàttaliku Mawlana Al Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane ñes ak yéen Mawlana al Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi bi nga xam ne ñi ngi ñaan yàlla yàlla dëgëral la yàggal la ba mébéti bàyyi wa ka ënnee bil maahi u assisu dawlatan taxaw bañ gis ko suñ bët dawla boo xam ne dawla xam-xam la dawla boo xam ne dawla alquran la dawla boo xam ne dawla firi alquran la dawla boo xam ne dawla defar doomu aadama la te loolu moom mooy sa mission ñi ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi waaye duñ fàtte mukk al imam cheikh Ahmed Tidiane di Seydi Ali Cissé nga xam ne lëjnal ulya bi yéen yu ñooñu yéen ko ŋànk tey ñi ngi am mbégte ak kontaante pour indi leen lenn ci résultat yi nga xamante ne nii euh, li nga ñu dénkoon la ñu ngi ñëw bugg a gàttal liñ bugg a wax yépp xajut fii ndax waxtu wi dafa jege te Cheikh Mouhamadul Moustapha ishaara na ma sànq ne ma buggut ñi téye la fi lu yàgg kon ñi ngi gàttal fii ba bés bi nga xam ne ci la ñuy joxe ndàmpaay prix Cheikh Ibrahim muy le 10 mai incha allah fii ci barab bi su boobaa incha allah danañ yaatal lu ñu bëgg a yaatal ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu képp koo xam ne waroon nañ laa tudd te fàtte la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. problème daara yi nekk Sénégal. ñi seen ñi gouvernement bi reconnaître mu xam ne mooy wax ci seen tur te ñoom la suñu ko nekkoon seen partenaire dimbalanteeg moom moom la ñuy jox kàddu moo leen fi uutu moo ñu waxoon ne benn kàddu lay doon te ñoom itam d'accord nañ ci kon bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina moolana muhammadin alfatih alxatim wa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu ziyaar ak kàddu yu ndokkeel ci turu al ittihaadul watani li jamiyaati al madaaris al quraaniyati fi Sénégal di ko teg ci loxol xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass mu jàllale ñu ko fu mu war a jàll ñi ngi sant yàlla bu baax ñun waa ittihaad bi ndax boo delloo gannaaw lu mat fukki at ak ñaar ci la ñu taxawoon ne nañ fexe dagale daare alquraan Sénégal yi ba ñu am benn kaddu euh, ba ñu am benn kaddu ba nga xam ne gox boo dem da nga fekk kenn loola ñu taxawal ko en 2010 bu ñu ko taxawalee ñu ne itam nañ fexe amal benn concours boo xam ne bi dañ koy def ba njàngum alxuraan ñi koy jàng te mu rafet mu mën a fés boo ëllëgee bu Sénégal amee ay invitation ci wàllu ay concours international ñu man a am benn répertoire boo xam ne day wóor ne bu ñu demee dañ am dara ci la ñu tërale woon programme bi lënkaloo ji ak Sénico Alhaji Abdoulaye Dia depuis 2006 ba léegi ñoo ngi koy doxal depuis 2006 ba léegi lu ëpp junniy ndongo jaar nañ ci concours bi lu ëpp milliard ci xaalis def rek jël na maanaam 400 millions kon nag loolu bu amee. yàlla aten ren jii ñu dëppee ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy raayi xafla bi yàlla ate itam prix bi ñëwaat fii ci pays bi doomu pays bi jëlaat ko te Alaaji Alaaji Ablaye Dia mi nga xam ne moo financé concours bi moom itam jànge alxuraan Kaolack lépp dafa del si Kaolack kon loolu ay remous la yoo xam ne yi yëpp dajaloon na fii kon ñi sëñ bi ñu ngi lay euh, ndokkeel ki tur daara alxuraan Sénégal yëpp quatorze régions yëpp quarante cinq départements yëpp di di ñaanal tam ñëpp fi daje jamiyaat yëpp li fi nekk ci ay jamiyaat mënu ma ko tudd parce que ëpp na fanweer euh, di ñaanal suñu suñu suñu doom ji Mouhamadou Mahi Touré yal ko yàlla aar te sàmm ko te euh, musal ko te eggale aw yoonam ñu ngi ndokkee ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu gi passé kaddu daara yi la kaddu gi nag mooy kaddu Sénégal mi organisé te def ndam lu rëy lii rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaa bu nu jiitalee sant suñu borom tabaraka wa taala di julli jonte bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaara ñëw nañ fi nag ci turu Cheikh Abdoulahi Dia mi nga xam ni moo jiite Sénico waaye itam moo jiite fondation Grand Prix Sénico nu ñëw fi ànd ak délégation boo xam ni ñoo ko fi représenté man ma jiite délégation bi en tant que koo xam ni man lañu dénk konkur bi ci biir Sénégal yépp ma ànd kook al oustaz Mouhamadul Amin Thiam mu ngi ci sama ginnaaw bokk ci délégation bi ànd ak Cheikh Babacar Cissé Diamal mu bokk ci délégation bi ànd ak Cheikh Adama Mboup mu bokk ci délégation bi ànd ak Serigne Cheikh Seck moom itam mu bokk ci délégation bi ñu ànd ak tam sunu jigéen di jàmbaar joo xam ni tey kuy jigéen ci senegal xam nga waayam muy Aseyda soxna Astu Ba moom itam bokk ci délégation bi ñu ñëw woon fii nag doon indi sunu doom di Cheikh Mouhamadou Mahi Touré ci kanamu sunu baay sunu wéyjur sunu kilifa a Cheikh Mouhamadou Mahi Niass nekk xalif général bu Medina Baye xalif général yow ak say rakk yow ak sag njaboot yow ak say taalube yow ak askanu Kawlax yépp Cheikh Abdoulahi Dia mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ndokkeel ci cër bii nga xam ne tey yàlla moo ko cëral ci sa sët bu ndaw bii di Cheikh Mahi Touré nee na mi ngi lay xamal ni délégation bi nga yabaloon dimaas bi passé te Cheikh Abdoul Malick jiite ko ne délégation la boo xam ni sedd na xolom lool ndax moom sax moo leen limité waaye bu leen limité wul woon Kaolack kon kenn du fi des kon loolu yi nee na bu ma ñëwee ba ci sa kanam naa la ko jotal nee na mi ngi sàkku sa ñaan ba liggéey bii nga xam ni moom la ko yàlla dénk muy liggéey ci toolu alquran di sagal ay doomi daara prix ren bi mu def ko vingt millions ci ki jiitu boole koog bii màkka yàlla dogal ñu pare ne ko cheikh al islam alhaaji ibrahima ñas muy lu njëkk am ci concours bi mooy nga pare ne ko nit raison ba mu dëkk doomu raison ba jël coupe bi ci édition bi lay doog ame amee kon nag loolu ñu ngi la ci ndokkeel yow xalif général di ci ndokkeel askan wi yëpp di ñaan ndam li yàlla na ko jig waxtu yu moo gàtt waaye liñ bëggoon a wax gënoon naa yaatu loolu de sàkku ci yow nga ñaanal Abdoulaye Dia ba lii muy def mu gën koo man ndax yéeneem bu àggee ci senegaal ndongal daara dootul tumuraanke sëriñ daara dootul tumuraanke waaye képp ku yëngu ci alxuraan dootoo tumuraanke ñu ngi leen di jéggulu ci gàttaay waxtu wi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. daara ji nga xam ne moo jàngal xale bii def fi ndam li dañu ñaan sëriñ bi même buy ñaari minute muy ki nga xam ne euh, Mouhamed Thiam mu jege si pour joxe kàddu ki nga xam ne mooy kàddu daara ji nga xam ne ci la Cheikh Mahi Touré al-Hafiz al-Mujawid al-Murattil nga xam ne euh, gan gi jóge woon Maroc nee na bu fekkee ne Cheikh Ousseynou dafa faatu bañ rob ko Égypte. judduwaat na Sénégal te bii moom du dee ndax bu dem rek beneen ñëw ilaa yawmal qiyaamati aouzu billahi min ashaytaan rajim ñu ngi sant yàlla di julli ci muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu suñ xalifa cheikh mouhamadul maay ibrahima Niass di nuyu suñ imam imam Cheikh Aliou Cissé di nuyu suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Maayali Cissé mi nga xam ne Mahi Touré mii gañe jaay sa bi moom lañ ko tuddee te ku nekk xam na ne mu ngi ci roon yonent bi sallallahu alayhi amul sikk ne ñaanam yegg si na fii ci jotaay bi di nuyu suñu sëriñ Cheikh Mouhamad Cheikh Abdoul Malik mi nga xam ne oustaz wax na ma léegi na ma nag ma ko gërëmal ku nekk gis na taxawaayam ci jotaay bi la ko dalee ndakaaru ba fii ci Medina Baye lépp lu ko ci war rek def na ko kon ñu ngi koy nuyu koy ñaanal yàlla mu yànkoo ko maa ngi wax ci turu daara ji xam naa dana jaaxal ñu bari xam naa dana jaaxal ñu bari waaye maa ngi wax ci turu daara ji ndax daara ji membre laa ci samay doom ñu ci daara fa mu commencé ba mi mu yem nii génnee champion bii di Mahi Touré lu ci bari xam naa ko oustaz nag moo wax ne naa wax ci turu daara ji waaye wax yombul kon li may wax rek mooy daara ji maa ngi lancé message ci mboolem autorité yi la ko dalee ci président ba ci ki gën a ndaw ñu dimbale daara ji te bàyyi ko xel ndax daara ji ba fii may wax ak kër goo xamante ni daara ji dëkkee na ko sax amagu ko te oustaz Touré mii jàngal xale bi ba mu gañ a jaay sa bi indi ko fii Kaolack mu ngi amee téeméeri xale yoo xamante ni mën nañoo gañ a jaay sa bi nga xamante ni xale bi gañ na ko kon maa ngi lancer message mbooleem autorité yi yi nga xamante ni tey ñu ngi Kaolack démb ba léegi nag moon Njaay Rahma laa gis muy yëngu ci bés bi di wax nan la ñuy def ak nan la ñuy tettoo xale bi ak ku ci mel ni sëriñ bu moom jàpp na ci bés bi ñu ngi gërëm ñu ngi ñaanal yàlla mboolem ko fi toog lépp loo xamante nii rek yéen a ngi yàlla yàlla defal la ko ñu ngi gërëm ñu ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa Xalifa ñu ngi lay nuyu Ñas ñu ngi lay nuyu di am mbégte toog ci jotaay bii di xam ne tey jotaay bii di nuyu kilifa yi fi nekk yépp ndax su ma sañoon tudd ñëpp waaye bis bi xat moo tax ak ajuma ji di xam ne bis bi bég nga ndax ku la xam xam na ne alxuraan bu yëkkatikoo rek nga bég kon yàlla yàlla guddal soo fan di wax rek ne lii sëriñ Ablaye Dia def ñépp ko ci ñee yàlla fàtte kon nag a ah, ñun dañoo war a xool alaaji eh, kii cheikhul eh, islam li wax ci alxuraan dane fal tajal hifaasa hifsa kitaabal karim karamati ila liqaayika al azim cheikhul wax ne kitaabun karimun min karimin mukarramin li abdin karimin nawala sarxawal xarba kon ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàpp ci lii taxawal ko yal na leen yàlla wattu comme ni wattoo alxuraan xale bi yàlla barkeel ko barkeel ay waajuram barke ko doon jàngal man nag bu ñu ma teralee ci dara a ah, boole ma ci pare yi jox ma ci kàddu ah danaa ci waslu àq benn bi mooy xale bi incha allah danaa ko jox 2 millions ci moom ak waajuram daara jam daan jànge pour ñu defaraat ko comme ni nga ko waxee léegi ma jox ko 3 million incha allah xale bi ci boppam tamit ba tey jii ba ba muy pare njàngam bu dee fii lay jàng bitim réewam danaa ko def ne ni sama doom lu war ci ma ko wax incha allah naa ko def jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa radiyallahu an saahibi alqatmi almuhammadi mawlana ahmad altijani wa waarisi sirrihi mawlana cheikh ibrahim radiyallahu anhu sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla wërsëgalee ñu fekkee jotaatu jotaayu tey bii waaye ma jéggalu rekk pour nuyu sa rak sa bi nga xam ne moom nga joxoon pour mu doxoon lépp lu aju ci affaire jaayisa bi mu Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass mu nuyu ko moom itam gërëm ko sant ko ci taxawaayam ci liggéey bi muy liggéeyal alxuraan fii ci béy bi nuyu mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp sëriñ bi nuyu préfet nuyu mbooleem kilifa yi diine yi nga xam ne mboolem njabootu sëriñ bi ñu ngi fi teew tey kàddu gi mën naa bañ guddu gudd xanaa dafa fekk rek ne wax naa barki démb ci tafsir bi fi mane njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu am na ndam ci alxuraan nekkul lu yéeme ndax Baay radiyallahu anhu moo ñaanoon yàlla pour yàlla may ko alxuraan muy karaama ci ay mbiram kon bu amee ndam ci njabootam loolu nekkul lu yéeme ndax ñëpp xam nañ lépp lu mas a yàlla def na kon yii ci waxoon boromam la rek moom la yàlla continué di feeñal. ci njabootam gi ak topp kon ñi ngi ñaanal Mouhamad mii nga xam ne Mahi mii nga xam ne moo jël ndam li yàlla may ko tawfiix sàmm ko may ko fan ba moom itam mu nekk di liggéeyal Qur'an incha allah comme niñ ko waxee jaadu na bu ñëwee fii nga xam ne tey dama wax ne xale bii doomi Maulana Cheikh Ibrahim la képp ku ko tere rek Maulana Cheikh Ibrahim nga na tere incha allah moom itam dinañ ko jox 5 millions moom ci boppam daara ji ko yoroon tamit danañ ko jox 5 millions te incha allah danañ ko may tamit terrain incha allah ay waajuram jooy ko bu màggee mu jëfandikoo salli ala sayyidina muhammad wa sallam ngee keer bërki démb ñi organiser concours boobu tudd euh, Tawhid TV mu gagné ci internet bi ba final bi jot ñu yónnee ko billet aller ne ko ñëwal aller rek lañ la mën a daggal Ousmane Noël Dieng mii bi mu ko yëgee nee na retour am ci Maroc moom mooy dagg billet bi te yëkkate naa xaalis bi jox ma ko démb. macha allah. jërëjëf bisimilah. Euh, auzu billahi mina sheytaani rajim. bisimilah rahmaani rahim barki yonent yàlla Muhammad xam naa ne wax ji du gudd ndax booy wax ci ay kanamu borom xam-xam te sa xam-xam bënnul noonu sa wax mën naa gàtt. damay nuyu suma bàyyi sama xalifa suñu sëriñ Pape Maye Niass maa ngi lay ñaanal yàlla ci daraja yonent yàlla Muhammad yàlla nga téeméeraat bu weesoo yaa nga am yeneen téeméeraat ci barki yonent yàlla Muhammad di nuyu sëriñ daara yu fi nekk di nuyu suma mbokku taalibe yi waaye di nuyu suma mbokku politiciens yi jiital fi sumay kilifa sëriñ boobu ak Moudou Ndiaye Rahma ak képp ku fi nekk di wax tey lislaam am ndam tey lu Mawlana Cheikh al Islam duñ jën na alxuraan jël na pay bàyyi ñes pay rek ndax international la pay et donc maa ngi gërëm ñëpp ba mu amee fu suñu doolee toll defoon nañ ko waxoon nañ na xale bi xam naa ne ku bëgg Cheikhu Tidiane la te Cheikhu Tidiane amul lu góob jox nañ ko billet Fès indi naa billet Fès baa ngi nii bu mu dem siyaare Cheikhu ak lu ko neex tegoon nañ si encore beneen somme téeméeri junne waaye dinaa jël ndigal monsieur le ministre Diène ba saar jox ko terrain ci Lac Rose téere mu def fa jàkka di fa jaamu yàlla di fa jëmal alquran lii laa amoon pour waxu rek di nuyu ñëpp di nuyu wax dëgg yàlla ëxlu ñe seen bi yëpp yal na yàlla defal leen jàmm ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala Seydina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu Cheikh Maay Ibrahima Niass ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di nuyu sëñ Maay Cissé di nuyu mboolem kilifa yi nga xamante ne ñu ngi fii ci dëkk bi te teew tey ci jataay bii di leen tatagal te di leen ndokkeel ci bés bu màgg bii di bési alquran di ndami alquran di ndami lislaam waaye ci bés bu màgg bii nga xamante ne bési sang yi la muy ajjuma ñu indi fii suñu doom ji fas yéene ko sargal ci alquran waaye ñu ngi nuyu di ziar ki nga xamante ne moo waral bés bii di xaadimul quran El Hadj Abdoulaye Dia teral l'islam sagal alquran sagal sëriñi daara waaye noppal sëriñi daara noppal ndongo daara waaye yëkkati l'islam ca kaw yëkkati alquran ca kaw El Hadj Abdoulaye Dia ñu ngi koy sant di ko gërëm cant koo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem prix bii rek ngeen xam muy 20 millions nga xamante ne liñ ci def ëpp na 80 nangami millions waaye fi mu dalal xale yi ak sër yëre yi nga xamante ne moom la xale yi sol waaye fàttewul sëriñu daara yi teral leen solal leen ay yëre kon yal ñu ko yàlla teral yàlla ko alxuraan teral waaye ñu ngi nuyu itam ki nga xamante ne mooy coordinateur national grand prix Sénégal nga xamante ne si yoon na 45 départements yi ci Sénégal yëpp ànd ak jury bi nga xamante ne ñoom Seydou Mouhamed Lamine Thiam ñoo ko jiite lu wër 45 département yi ban génneel ñu résultat yu mucc ay bii nga xamante ne mooy xale yi fi taxaw tey enseignement yi bokk ci jël premier keroog ba ñu def final régional ñu ko defee ca Sani Turandoo yàlla def mu gañe fii région de Kaolack ñu yóbbu ko Dakar mu jël national indi ko fii ci dëkk bu tedd bii nga xamante ne bu alxuraan doon garab dañu naan fii la reen yi sax nga xamante ne mooy dundal garab di nuyu ki nga xamante ne mooy sëñ Moustapha nga xamante ne moom moo dox li nga xamante ne mooy fédération national des associations des écoles coraniques du Sénégal ba lëkkale mboolem Serigne Daara yi ne ci Sénégal ba tey sëñ Abdoulaye Dia ñëw yombal liggéeyam liggéey bi yomb lool ba fi Serigne Daara fu mu ne amul benn waaso woo xamante ne bokkul ci fédération bi ba sëñ Abdoulaye Dia di def teraanga joo xamante ne dafa lëmbe Sénégal fu ne bi bi amee yóbbu na fa ay ceebam fu ne yóbbu na waaye du ñu fàtte nag Serigne Boubou. ndax ku xam sëriñ bu xam ne sëriñ bu doomi daara la ba ñu commencé lii ba tey moo ñun la bañ ko commencé ca lancement ba ñu doon def fële ca CICES sëriñ bu ak ñun sëriñ bu lii mu def du bette ci ñun parce que doomi daara la te dafay liggéeyal l'islam di liggéeyal alxuraan doon nit di social kon sëriñ bu ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye fàtte wuñu itam ñii nga xamante ne ñoo fi nekk tey jàppale l'islam kii fi maye terrain bi muy monsieur madame le maire ñu ngi koy sant di ko alquran cëram dañ ko ko te dañ ko ko war a jox ndax bu jàmm amee mi alquran a tax bu réew mi seddee alquran a yi nga xamante ne ñoo yore xale yi def alquran ci seen dënn yi allahuma xale yi moo tax réew mi yi moo tax réew mi delluwul gannaaw kon ñu ngi sant ñëpp di sant wayjuri Mahi Touré ku ne xam na ne sëñ Mahi Touré wayjuram de am na lu mu liggéey ndax sa doom gañe na lu ne waaye sa doom der jël na grand prix alquran Sénégal kooka yaayam defal na toogaayam te jigéen ñi war nañ koo roy ñu ngi sàpp nag ci mboolem autorité yi ne ci Sénégal nañu gëstu daara yi ndax daara yi dañu am cër wu rëy ci réew te ba tey seen cër dafa des xam ngeen ne lii ñu def ut nañ ba sonn coupe du monde football mosuñu ko am waaye coupe du monde alxuraan am na fi amati fi kon nag alxuraan nañ ko jox cëram nañ leen dagal ay kër jox leen ko nañ leen jox luñ ko tabaxee nañ leen teral ndax yàllaa leen teral te ku yàlla teral ku ko teral yàlla teral kon ñu ngi sant ndey daara yi ma àndal yëpp nga xamante ne dañu jóge ci dëkk yu fa fasantikoo yi nga xamante ne région yi ci Sénégal yëpp ndey daara jóge nañ fa yoon wi dafa gàtt te ñooy jël sama nuyu rek di ko teg ci Adja Ndéla Dia ñi nga xam ne mooy présidente bu Kaolack ak euh, Adja Fatou Bintou Mbaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yal na nga fi yàgg te wér sagi yoon wi nga sagi lislaam nga yal na ñu fi yàlla bàyyi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sëriñ daara bi nga xamante ne moo jàngal sëñ Maalik Touré di ko ñaanal yàlla gudd fan di ñaan yàlla sëñ Maye yal na yàlla guddal fanam te lépp luñ ko fi jox yal na ko muurloo ak yu waajuram dañu am nag cadeau boo xamante ne dañ ko ko jox ci turi ndey daara yi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf euh, di nuyu monsieur le di nuyu parrain cérémonie bi di ñu ñëpp kilifa ñu fi teew IEF e Kaolack commune dina ñu ngi rafetuloo jotaay bi suñu candidat bi Maye Touré moo xam ne moo gagné prix Sénico récitation du Coran dafuñu ñu sargal tey dafa tout cas am nañu fierté bu maximum te dafa wane que fii ci Kaolack fii ci Sénégal éducation arabo-islamique éducation religieuse dafa regorger ay talent ay experts ay euh, sëriñ daara ay responsable yoo xam ne dañu xarañ dañu am euh, expérience gestion pilotage bi système éducatif defe naa ñii ñoo tax ñu am tey satisfaction bi kon tey ñu ngi gërëm di sant ñu ko encadré di gërëm di sant enseignant ñu di ne ñun tamit suñu côté si éducation nationale fii si kaw Kaolack dañu programmer organiser benn journée bu ñu ne journée de l'excellence moo xam ne mois de novembre bii ñëw dañ koy jël pour sargal élèves yi ndongo daara yi sëriñ daara yi jàngalekat yi ak responsable alphabétisation ñoo xam ne ñu gën xarañ si jàngale si yorum école ci gérer ndaara kon journée boobu bu jotee kii ku ñuy sargal dinañ ko sargalaat ñun tamit waaw éducation nationale parce que mérité na ko vraiment dafa ñu jox fierté merci ñu leen gërëm sant ñu ngi leen bu baax bi ci kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun yëngu na bés bi tedd na te bés bi ci la bokk te bés bi itam du tumuranke pour Sénégal am ko ndax li euh, ñuy wax ne nit dafa war a am am modèle ak référence Sénégal dafa am modèle dafa am référence moo tax xale bi tey mën naa génn ci néegu Sénégal bu nekk ndax loolu mooy Sénégal ndax mooy seen mooy seen référence Sénégal bu nekk mi nga xam sëñ Omar Tall Cheikh Omar Sénégal bu nekk mi nga xam El Hadj Abdoulaye Sénégal bu nekk mi nga xam Cheikh Hadj Malick Sy Sénégal bu nekk mi nga xam Sénégal bu yu modèle yu kawe yooyu nga xam ne Sénégal fàttewu ko te mënu ko fàtte waxtu wu nekk mi ngi joxe ay preuve ne fàttewu mu sama diin fàttewuma sama démb ci alxuraan fàttewuma sama demb ci julli fàttewuma sama démb ci koor gi fàttewuma sama démb itam sama relation ak sama diine naka laa war a taxawee kon su fekkee moom modèle yooyu ñoo suñu modèle euh, modèle yooyu fu ñu ko jële woon ci ay yaay lañ ko jële woon yaay yoo xam ne ba nit ñi di uti ñoom xam nañ fañ doon utee yi ak lu ñu doon ut yow yàlla ñaanuma la nga may ma doom bu ordinaire doom bu extraordinaire laa lay ñaan nga may ma ko te defe naa dugg nañ jur nañ ay doom yoo xam ne doom yu extraordinaire la bésu tey bi tegtal la ci loolu ne jigéenu Sénégal boobu amoon mi ñu kawe ñooñu démb ba tey jigéenu Sénégal ñu am xale bi di tudd Mahi Touré àgg ci alxuraan foo xam ne kilifa yëpp a ngi daje ndax moom di ko teral du jëmm ci xale bu ndaw bi la ñuy teral mais alxuraan bu kawe boobu nga xam ne dañ koo doon muy mbaaxu Sénégal fi ne Sénégal yëpp a nekk nii euh, jigéenu Sénégal bu nekk doomu ma ngi nii góoru Sénégal bu nekk doomu ma ngi nii waaye itam xalelu Sénégal bu nekk saraka ngi nii wala samaga ngi nii loolu mooy Sénégal te loolu gannaaw mooy Sénégal amul lu ci mënul génn ci mbaax amul lu ci mënut a yàq amul lu ci mënut a yàq génn ci kawe amul bu ci mënut a yàq génn loo xam ne day wone ne ñun peuple du démb boobu tey peuple du démb boobu ñooy peuple du bi te ëllëg ñooy doon peuple ëllëg bi ndax xale bi pour ëllëg la. Eh, am nga am nga prix man seen du ah, man maa ngi ñoo bokk tur d' accord bokkuñ tur du suma tur mais ñoo bokk tur mm-hmm. waaye maa la njëkk a prix <laughs> sa prix dafa neex xaalis la man suma prix liggéey la man suma prix liggéey daara moo tax waa sëñ daara bi dóor ma ba gaañ ma fii ci baal ma ñëw ci bàyyi yaakaar naa bu ma ko wanee deret ji tuur ak yooyu dina ma génne daara ji ma ñëw ma ne ko gis nga ni ma sama sëñ def mu ne ma ah yow de kontaan nga am nga diggante alxuraan am nga diggante kon am naa prix bu yàgg-yàgg yow de sa prix ñëw na te naa ngi yaakaar ne képp koo xam ne maa ngi nga tudd maa ngi lay yaakaaral bés de tamit nga moom bés bi nga am bés bi saa wu ñaa ngi ci daara ji saa wu ñaa ngi ci école français bi ndax xam-xam rek mooy kawel nit xam-xam rek mooy yëkkati nit xam-xam rek moo doy la nit ma benn chrétien ci Nigeria suma voyage bi vraiment dafa nekk dafa nekk modèle moom tamit dafa alal la am boobu daf koy joxe pour peuple tabax na kër danga koy def mu ne bàyyi sama peuple sama gannaaw ñu nekk ay borom xam-xam moo ma gënal ma bàyyi sama peuple gannaaw ñu réer ñu nekk peuple bu réer te yëpp xam-xam la diine xam-xam la euh, leneen itam xam-xam la donc man gannaaw mën naa participer pour defal sama peuple ëllëg ala foog naa si participer donc kooku modèle la moom boo xam ne euh, ma ne ko yow yaa ma gën a dégg diine yaa ma gën a dégg diine parce que diine loolu la mooy doomu aadama yi tàllal leen seen diggante eh, teranga yi nga xam ne yàlla jox na leen ko ndax ngeen yokk seen bopp jëm si kanam ci teranga yooyu ñuy jokkalante ci la ñuy jëmee kanam te senegaal gi dëgg-dëgg bésu tey bii ak jigéen ñi toog jigéen ñi fàttali ñu ci xale bi ne man maa juróon démb Cheikh Omar tey mën naa leen a jural maaxi mën naa leen a jural keneen mën naa leen a jural keneen donc bon senegaal Sénégal modèle la waaye Sénégal référence yooyu nga xam ne am nañ ko fàttewuñ ko mu mu mu daara yi samp fi euh, référence yooyu am ko ñu am mémoire bu ñu leen téye ci suñu waxtu wu nekk bëgg mel ni ñoom ku nekk tere na fii ay bayt yoo xam ne Cheikh Ibrahima ko wax Cheikh Ibrahima Cheikh euh, Ahmad Bamba moo ko wax te yooyu yëpp dañ ko ci alxuraan ci alxuraan ak saxaayu alxuraan ak nekkaayu alxuraan parce que nit amut fu mu jëm nekk fu jëm ci àddina mu gën a kawe nit am néegu alxuraan parce que li nga wax bu sax see dugg jeex na du amatoo ci àddina waaye yonent def ne de yéegal yéegal ah iqra wasa del jàng di yéeg bon nag su fekkee ñu ngi am ba léegi Sénégal di am bés boo xam ne mu ngi yem nii ci moom góor ak jigéen mag ak ndaw ay ñëpp génn ngir euh, feetoo seen doom boo xam ne yàlla teral na ko ci alxuraan dëgg dëgg yàlla am kon Sénégal mi ngi am mémoire am fàttewu ko mais Sénégal mi ngi am ay référence am fàttewu boo fàttewul sa mémoire fàttewoo boo fàttewul boo amee mémoire te fàttewoo say référence amul sikk te référence yoo xam ne jar nañ ko référence yoo xam ne jar nañ ko parce que bu ñu ko jarutoon duñ loolu référence mais dañ koo jar moo tax ñu nekk référence yu ñii bon Sénégal gii taxaw fii tey ak alxuraan di ko màggal ñëpp màggal ko néeg bu nekk xale bi mën na faa génnee ci Sénégal dëkk bu nekk xale bi mën na faa génne ci senegal parce que ñoo parce que ñun la ñoo bokk suñ taarix ñoo ko moom ñoo bokk suñ taarix ñoo ko moom ñoo ko am mi mel ni dama dégg barki dem ba Assane Dia ci discours bu bi yàgg ma mu takk euh, benn médaille bu rëy ci dënnam bi mu ne nit ñi mos leen naa gis ma takk médaille bi mos mu ko takk mos leen naa gis ma takk ko xam lu tax ma takk ko tey dama koy takk pour wax leen ne ak yéen man ak yéen ñoo ànd man ak yéen lépp loo xam ne moom mooy seen sàkkuwaay man maag yéen ñoo yéen ci ànd man maag yéen maa leen amee teraanga boo xam ne du ko sànni te dina ko sàmm ba kenn ku nekk ci Maroc yëg ko te loolu du man muumuma ko waaye marocain yi ñoo ko moom marocain yi ñoo baaxee noonu marocain yi ñoo joxee noonu Maroc jikkooy marocain moo mel noonu bon jikkoo Sénégal itam ak aju Sénégal ci dëggam aju Sénégal ci boppam mun naa génneel Sénégal lu nekk mën na ko génneel lu nekk ci àddina bi te ñu ngi gis ne ko génneel lu nekk ci àddina bi ci daara ji ak feneen fu daara ji itam lu nekk mën na faa génn parce que itam lu nekk xam na ne alxuraan rek mooy teraanga inna allah euh, euh, euh, yàlla moo ñu wax ci alxuraan ne summa awrasna summa awrasna alkitaaba alladina istafayna min ibadina istafayna min ibadina bon ahlul alquran hum alladina ixtaarahum allahu li hadihi almasalati li hadihi almuhimmati alkubra muhimmati rafci alinsan min bashariyatihi alturabiya ila xulwihi alinsaniya alsamawiya loolu ci alxuraan rek lañ ko mën a amee te ku nekk xam na ne alxuraan defal nañu loolu fii ci Sénégal te te itam ñu ngi yaakaar ni dañu ko defal fu nekk ci àddina nañu wóor nañu Sénégal benn réewu ah, musulman rawuñu ci alxuraan benn réewu musulman gënuñoo bëgg alxuraan benn réewu musulman gënuñoo langaamu ci alxuraan parce que dañ cee langaamu parce que suñu ay référence ñooñu woon ne alxuraan mooy bunt bi nga xam ne ku bëgg a mucc ci ngay jaar ah bon ñu te bésu tey bi tegtale ne sénégalais bu nekk yaa ngi ci bunt yooyu nga xam ne moom la la sa référence bàyyee yaa ngi ci bunt yoo xam ne suma mémoire bu ma ko daggaleeg suma référence boobu parce que bëgg maa réer bu ko boole fay Sénégal yi génn fii yëpp lu nekk lu lu ñu ngi wane ne ñoom ñooy ñooñu ñooy ñu baax ñooñu ci taarix ñooy ñooñu daan jihaat ci taarix ngir alxuraan ñooy sëti ñooñu nga xam ne ñoo daan jihaat ci taarix ngir alxuraan nekk fii Sénégal ñu di ko doonante jiileen baada jiil ba ba ñu taseeg suñuy borom ay mémoire ay ay référence yu yu kawe ñoo tax ñu mën a am loolu ak mémoire boo xam ne ñu ngi ci langaamu ne duñu fàtte ñu yu mukk laa dina parce que ñàkk koo fàtte moo wone tey ku jóg rek di nga wax euh, Cheikh a mu ne ij'alna al-Qur'ana Cheikh Mat Bamba mu ne ij'al al-Qur'ana al-Karima loolu yëpp dafay wone ne am nañ ay mémoire am nañ ay référence waaye itam am nañ mémoire mémoire boobu moo ñu téye ba léegi ñu mën a àgg ci suñ ci suñ ci suñ jotaay yi bés yu ordinaire yi mën a àgg ci jotaay bi ndax ñu ñii ñëpp xale yeeg mag yeeg ndaw yeeg yëpp ah dara génnewu leen lu dul màggaayu alxuraan ci suñu xol gis ku ko yàlla teralee ñu ñëw ne ko dinañ bokk ak yow teraanga jooju te bokk na bokk na bokk nañ ko ndax. booy alxuraan loo ci def rek sa bopp nga ko defal te ñun ñëpp ñu ngi daje fii pour alxuraan bokk nañ ci xamee nañ ci euh, Abdoulaye Dia Abdoulaye Dia benn nit boo xam ne yàlla yombalal na ko xam naa ne moom tamit mun na def loolu aw sa mu def Nigeria moom itam mun na ko def te xam naa ne dina ko jéem pour def ko ndax doomu aadama amul lu ëpp ci àddinaam gannaaw gëm yàlla defar defaral defaral ñi nga xam ne ñooy ñëw ci gannaawam mu defaral leen yoon mu defaral leen yoon yoon bi nag gënu cee kawe xam-xam yoon wi dara gënu ci xam-xam dara dara gënu cee kawe alxuraan alxuraan tem kawe na kawaay boo xam ne ñi nga xam ne aju nañ ci alxuraan yëpp danañ kawe ndax dégg ngeen li ngeen dégg fii yëpp sëriñ bu lim def ci alxuraan tey yeesu tey bi ak euh, njaay rahma liñ def fii tey loolu dafay wone màggaayu alxuraan ci suñu xol langaamu bi ñu langaamu alxuraan ci suñu xol ah? ah ak euh, Malick ah euh, Malick Noël moom tamit mi nii dégg ngeen itam loolu yëpp tey dafa génn ci alxuraan te yi génn lu lu mag la terrain million na yu mag la yu mag la yu yu fi génn bu ko defee yu mag yooyu itam lu mag rek moo ko mën a génne yu mag yooyu lu mag rek moo ko mën a génne te xale bi tey ci at waaye nekkatul xale ci at parce que mu nga dugg ci summa awrasna alkitaaba allazina stafayna min ibadina ah kooku bi ko yàlla defalee lu ba pare jox ko médaille moo ko njëkk a jox médaille fa minhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها بطوائفهم ثلاثة المقتصد yooyu yëpp jaayisa boo xam ne itam yàlla moo ko may ak ahlu alxuraan gannaaw boo xamee ne may na leen alxuraan ba pare may leen jaayisa nu ngeen mën di mel yoon ñi nga xam ne man maa leen may alxuraan nu ngeen mën di mel yéen ñëpp da ngeen di daje ci aljana ah aljana yoo xam ne dama leen di takkal ay médailles yu wurus ay ay médailles xaalis يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وان يلا أول من أعطى لحافظ القرآن جائزته هنا في الدنيا وسيعطيه جائزته غدا في الآخرة نيجي ndokkeel ñu ngi ndokkeel Abdoulaye Dia bés bi kenn dootu ko fàtte wa ak bés yi itam bés yi bés yi li nga def yëpp kenn dootu ko fàtte ndax euh, alal neex na lool ci bakkan kawe na lool ci bakkan ah, am naa alal mais dama bugg a delloo alal ci ki ma ko may mooy yàlla du wax ne ah, man maa amal alal ji ah, sama bopp mais dama am alal ji parce que yow yàlla yaa ma ko may kon naa la ko delloo yow yàlla kon ñu ngi gërëm monsieur le préfet ngi gërëm Rahma ñoo ngi gërëm Serigne Mboup ñu ngi gërëm soxna si ba ah, ah soxna astuba ak mboolem soxna yi nga xam ne ñu ngi toog fii te itam ñu leen di wax ne ñu ngi leen di félicité encore beneen yoon ndax ndax ba tey mën ngeen mën ngeen a jur ba tey yéen a jur ah yéen a juróon dem sëñ Bamba mais yéen a jur tey Mahi Mahi Touré bi tey ak mi di génn di ko feetoo <coughs> te defe naa kenn musta tari alxuraan am fet gu yem nii ah waaye kenn sa téléphone am am seet gu mel nii ndax lan ndax nit ñi dañuy yokk yeewu bu ñuy gën a yeewu di gën a xam seen njëriñ lan la bu ñu gën a xam seen njëriñ lan la ñu gën ko fonk bu ñu ko fonkee manifesté ko loolu la alxuraan lay fonk moom lañ am jot nañ ci yàlla sédd nañu ci cër ñu ngi koy manifesté ñu ngi koy manifesté jazaakumullaahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatullaah ñëpp toog na ñëpp toog naa fa rek sëriñ bi ne naa fa rek صدق الله العظيم Amin.